damay jóg

waaw voilà na ko tiim rek moom man sama kaa dinaa ko dinaa ko jël. ana Seexuna. ana Seexuna ne ñu may tuuti ma ñëw ci sama géej. waaw loolu am naa. salaamaaleykum ana Seexuna nañ ma may ma ñëw ci sama géej. ana Seexuna nañ ma may ma ñëw ci sama géej. ndax dama ko bëgg a jigéen li ma koy wax mu koy dégg. may leen na tuuti. salaamaaleykum Pape su ma ñëw dugg jàkkaarloo si maanaam dama ko yëlëb. ngay njóora ba si bàcc sama waay. nga xam ni sa kër maam du nga xeeral bala ñoo waxati di déwén. nga xam ni la jor bi nekk loo bokk ak tubaab bi yàgg na ko wax. lijjantil ma pause. arrière ma tuuti arrière. moom mën naa lijjanti boppam moom. des fois ma wax nag. Ah, dama ne la seexu naa tey yaa woote tey dañ lay waxal comme ku di doon lakk sa géwél yi ñuy tax a sa juróom-ñaari maam ay bett bett la nga naam ci gileem ba fees dell wàcc ma daan naa la war waaye ku daan da ngay kaw gidi bëree ndeeg bàyyi waaye fulla ak fayda borom jom day darajee bàyyi jukki jukki la yow doo ko déggle da ngaa déggal say waajur moo tax loom jomb la seexu naa nangu naa ku la mag ci waaye nangu ma ku la gën nee naa la ci esprit ci compétence ci fulla ci fayda ci sëtu kër la fekk baa sëtu kër bàyyi baa doonul musaan ñu tëj leen ko ñëw leen ko danaan sa loxo dama la aji yaa hadiya ngoyaan loo ci rek mu réew mi ñu nekk nanga naa ku la nag waaye nanguma ku la gën nee naa la duma duma xale yu ma xale waaye masi li leen jaaxal seetaa si bàyyi ci la xale yi jàngi raam wàcc ma daal waaye ku daal da ngay féete kaw seexu naa dama ni la nga nàmp ci gileem ba fees del sànq dama ni sa soxna si ci kaw dama ni ko ginnaaw di du bàyyi kuy goj di topp kuy taxani yaa ma gën a la géewal dama ni la ba dama ne la forte délégation bi ma ànd ak ñoom ma ànd ak ñoom jóge Touba ñëw xam nga ni dama ñëwee nga dégg daal seexu naa dama ñëwee nga dégg daal ana maire bi. eggaleel ba ñu yëg ci kaw. waaw waaw waaw damay wax ci sama doom dama la ne meew jombul pël ñaaña ma xataal ajana ko awa joobay sa yaay sa papa nga ca ajana sa fa tabaarakalla macha allah pasar pasaree woo seen bopp jaayu leen seen bopp yem. yiw jàng alxuraan xam sa sëy bi yal na ko yàlla boole ci sëy ya ca aras ñaanal sa sëy bi yal na barkeel lii di kaddu ne pourquoi c'est le travail de maman sa yaayee liggéeyal kon tabaar fa kàll macha allah yal na la yàlla la fa cat yal na la cat siiw moo tax ma waaw waaw jërëjëf te yaakaar naa ne xol yëpp set na. ci diggante Cheikhouna ak Saint Télécom ñoom ñaar ñëpp di ay taalibe Serigne Touba bokk yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasuul tey nag maa ngi lay ni la nañu dégloo tuuti rek ku bëgg Serigne Touba nga déglu. ba pare ko yaay sànq eh, Cheikhouna avant ngay ñëw sooy bi dafa yëg ci kaw képp ku fi géwal ko ñu ngi nii jóge Touba mu ni ñëw leen toog ma teral leen moom mii moo di ko def. xam nga loolu lépp xamal ko waral. xaddu xulóog nag taw te kii seen yóbbu. jooloo dégg ca teen ba gars yi amul baax la. waaye gars yi am baax. teen baa leen fa yóbbu ngir wut ndox. xulóol ak jàmm bu mattandoo nga xam da nga du benn. yéen ñaar da ngeen a bokk ko leen yaakaar. bokk bëgg. muy sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul. tey maa ngi koy wax ci bi nga bi ma bi ma tabbee place Soweru télécom rek xam naa ni cofeel bi mu la ëmbal moom bu ko mën dafa ñëw ci ay client tubaarkàlla macha allah ci ay nit mu ne seexu naa tëjal ñu tëj ko mbaa jàmm la mun na fi jëm ku ma jëm tëj ma ko foo mu ne maa ngi jëm ci borom xol bu rafet maa ngi jëm ci ak taalibe Sëriñ Tuubaa maa ngi jëm ci ku am jàmm maa ngi jëm ci ku nangoo liggéey maa ngi jëm ci ku am fulla maa ngi jëm ci ku am fayda mu ne ko ko seexu naa ma ko war a ne laaj moom loolu tax ma ne ko comme la tuddee di nga jël ci moom juróom-ñaari ji seexuna ñu xëyee la xaadim borom nit ñi bàyyi si biir suñu bàkki maaram xaadim borom nit ñi maanaam salbati sin bë sëñ Tuubaa sa waay dina fayee 1928 la dem Gabon diggante Conakry Mayumba tubaab bi ni ko soo jëlee ci gaal bi toon ñu boo jëlee toon yàlla sa borom mooy dërëm bi xër sëgi sëgi jëfe tax suuf nee daf baati ndóolaay ñu ne ko lu mu ne ko def 30 tonnes lay sëf diigul man Ahmadou Mouhamed ma fanweeri kilo bàyyi si biir suñu bàkki maaram xaari borom nit ñi mën a sëlmat sin ba mu teewoote ëppi dowoo sim soolal def juma ba ñetti mag gi màggal bu mag gi juma ji mag gi sëriñ bu mag bi xaari ñëpp xaari borom nit ñi saa xel xooloo maamam bi mu jógee dañ ko ba dam doomi soxla dama ñëwee mu dem ndaam jël fa ko jox yàlla ko jokkumba sëy yàlla ko ak gaydel Daaro ak Faaloo mhm. ak Maam Ndiaye ak Anta Seck ñoo bokk ndey baay Sidi Falilou Fall aw ba sa jax réew ba cam ñoo mene ma kumta xaarim ba nit ñi xaarim képp mujjee mhm. dongo sirif sool gën juma bam soxna Fatou Diakhaté Saliou borom nit ñi kii nag Cheikhouna moo jël doom fay ko sëriñ Saliou Mbacké borom ndàpp ndàpp borom ngop borom njurul borom doka borom xabbaay borom jëlatul maxwa Saliou soxna Fatou Diakhaté barki démb dafa def loo xam ne dinaa ko nettali Cheikhouna mi xolam set ci dafa tabax kër gu yegg ci téeméeri million ñoo beex kaay ma ñëw mu xoos kay bi si ne ko ma ne ko nii loo ci jublu mu ne sama yaay laa ko jox sama ñëw loon mucc ma ci àdduna wala mucc ma ci sama biir yaay lii moom tey duma ko am te keroog téeméer million jox yaayam ànd ak man bala gros te du million jox baayam kon war naa a ne sooy bu télécom waaye nga ne tey yaag seexu naa benn yaa ngi koy def maanaam yàlla yàlla bu baax. kii laa bëgg mën a liggéeyal benn yoon. waaw waaw ñoo xam ne moom xam nga yal na la yàq yal na de sa jàmm ak salaam yal na ne loxo sa noflaay. salaam fa kaay nga macha allah. lépp jàmm yaa nag sama jabar. maa seetlu na guddoog gi. waaw maay témoin. waaw yaa ngi dégg. mais guddoog gi des a ngi nii. ak xob yeeg lépp. da ngay ñëw ñëw wala doo tàmbali. dama taa bañ mooy lan yow. dëgg la su dee dëgg li muy wax ni yow. président nee na moo ko ñëwoon. président nee na moo ko ñëwoon. ah président ah waaw li neex na waay Mouhamed kontaan naa. kon kon tàmbalil tàmbalil. suba ak léegi nii. Cheikh bu toogal mu foto la. ajara fa awa jóobay sa yaay bilaay wallaay moom na fontoo moom ak sama moroomam yéen ñi fi ne font waa dëkkam sa yaay leen faj daal na xataal yal na sa sëy bi barkeel yal na ko yàlla boole sa sëy bi xaram ngir yàlla xool na ñu génn tuuti mel na dama yoroon waaw mais xaaral tuuti jàpp amat amat amat amat lamb lamb lamb lamb solos jëwriñ solos jàppale mel na mu liggéey waay jori jori yoo laay déglu de maa leen ko promet dem ngeen def maa leen ko mat ini ñu teel la Thank you.